jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb bàkk ba jib na générique bi départ jàngat làmb tàmbali euh, ma leen koy defal saa su ne mbokk yi tey nag ma ànd ceeg koo xamante ne vraiment xale la waaye xale bu am jom xale la boo xamante ne vraiment ni ma koy waxee saa su ne xale bu gëm boppam gëm liggéey bi muy dugg ci làmb gis ngeen fi nga xamante ne jaar na fa ba tey mu doon li mu doon ci làmb muy jam production ñu koy jaajëfal bu baax ci dalal bi ñu ko dalal tey fas yéene waxtaan ak moom rawatina ci affiche bu mag bi nga xamante ni décroché na ko mu dox ci diggante Fils de Balla ak Gora Sock mu nekk combat boo xamante ni vraiment askan bi ñu bari bëggoon nañu combat boobu yaakaaroon ñu woon ni sax mën naa nekk waaye xam nga ni boo ko fekkee rek ak gàttaay beeg pexe bu bari bi da ngay xam ni dafa mën a lijjanti ginnaaw loolu dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi jàmm maa lay nuyu baax di la siyaar. Diédi maa ngi fay di la siyaar. Mm-hmm. di la nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay. Mm-hmm. di nuyu képp kuy suivre Wassare Lamb. Mm. di leen ñaanal jàmm xewal sutura bu baax a baax di nuyu waa kër gi yëpp. Mm. di nuyu di ko dalee si directeur général ba suuf bàyyiwuñ kenn. képp ku mm. nekk wasaare rek ñu ngi lay ziar bu baax. di nuyu njabootu làmb di ko dalee ci ministre des sports Matar Ba ba suuf. président Bira Sène manager yi entraîneur yi mbër yi fan sa club yi amateur yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax. di sama waa staff jam production yëpp di teg nuyoo bi ci loxo Grand Mor ba suuf bàyyiwuñ kenn. Euh, ñu koy jaajëfal bu baax mbokk yi nag tey jàngat bi dafay am yenn combat yoo xamante ne ay combat la combat la yoo xamante ne ay combat yu neex la xale yi bëri nañu ci wane nañ ci seen bopp waaye dinañ ci ànd ak yéen ginnaaw loolu xam naa dañuy dem barestiku rek dem stade arène national doxale indil leen benn combat boo xamante ni vraiment nekk na ci combat boo xamante ni combat bu neex a neex a neex a neex la xale bi di Bébé Balla moo ko bëre woon daan ci jël boo xamante ne jël bi amul benn werante dañuy dem arène nationale xooli combat boobu su ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi ay ca ñu dem. Bébé Balla Ram Diop. bi na Bébé Balla moo ginnaaw moo ngemboo ngemb lu weex li ngemb Lagos bi euh, Ram Diop moom nga jàqar lool Bébé Balla Ram ñoom ñaar ñu ngi noonu di lewaatoo Bébé Balla nag dafa nar a dem Bébé Balla sëgg na lu mu nar. daa fas yéene bëreeg Ram Diop Bébé Balla Ram Diop door na ko coup bi Balla moytul am na lu naaw Ram Diop jëli na ko mën a bëre Bébé Balla fi ñu ko yegg sori na da ciy génn li mu yàbbi lan la protestant bi naaw na wala naawut ah Adama protestant bi naaw na wala naawut Ram Diop Bébé Balla ñu ngi Ram Diop da koo bëgg a sulli laay laay lan laa xale tegal fees bañ na <laughs> mbot la ilaha oh! waay Bébé Balla ngi eh, xale bi daanaan la gis ngeen combat boobu xale bi nekk xale boo xamante ne vraiment mën na bëre làmb am nañ ci moom yaakaar muy Bébé Balla mu daan Raam Diop jël boo xamante ne jël bu bu rëy la parce jël bi yaakaar naa ni tey bokk nañ ci jël yi ñuy jàpp ne jël yu dàq ci at bi la vraiment ñuy félicité waat bébé Balla bu baax di encouragé am Diop di wax ni gars yi saa su ne rek dañuy bëgg di leen indil loo xamante ne vraiment euh, dañ ciy mën a waxtaan. Jamaïcain damay njëkkee ci yow ci combat bi nga xamante ne vraiment taxawal nga ko muy fis de Balla ak xale bi di euh, Gora Sock noo def ba ba tax taxawal affiche boobu. waaw jili question boobu nañ kontaan ci tontu ci. Hmm. Gora Sock ak Fils de Balla ñoom ñaar yëpp ay champion lañ. tey buñ ne làmb ji dafa manqué ay poids lourd ñoom ñaar bokkuñu ci ndax koo ci jël mën na 130 kilos. ñoo mm-hmm. tolloo mm-hmm. dëkk ci ay gox yi nga xam ne ni ñaari gox yëpp dër bi la seen seen seen daje ci làmb dër bi lay doon. Mm-hmm. parcelle ak géejawaay waaw parcelle de Balla def lu am solo ci làmb. Gora Sock def lu am solo ci làmb. Gora Sock daan ay moromam doon dem yéeg ci kaw war a Euh, Tyson 2 Tyson 2 daan ko mu jëlee fa defet hmm. Fils de Balla jël komba bi nga xam ne Sénégal gi yëpp hmm. kenn ñi mu wutoon a teg ci moom hmm. daan général Malika fere na ko ñoom ñaar nag tay boroom leen seet ci làmb ji seen morom yi ñu toll ni ñoom taay bëriwul te ci kaw ñëpp Sénégal yëpp dañ ne poids lourd dañ manqué léegi dañu fexe boole leen ñoom ñaar ku ci daan dem fekk seeni mag combat bi ci benn fan lañ ko dox ci benn fan mais combat bi li nit ñi naan revanche Modou Lo la ak Balla Gaye 2 da ngay confirmer loolu. waaw c'est normal loolu war a am ndax góor a soog moom Modou Lo ñooy ànd di entraîner. bu mm-hmm. dégg bëccëg. Mm-hmm. fils de Balla mook Balla Gaye ku ne Balla Gaye nit bu tuddee la boppam rek am na cofeel ci yow. Mm-hmm. ba pare bokk ak yow benn écrit. combat bi balaa koo jël da ci waxtaan ak Balla Gaye Balla Gaye na ko jëlal te leer na ma góor a tamit balaa jël combat bi waxtaan na ak Modou ci ñi mujj a wax ak yow sa jour jouru làmb dina ci bokk mooy ñaari mbër yooyu Fils de Balla bokk na ci mbër yi mujj ak Balla Gaye ci biir géew hmm. Gora Sock gaa bokkul ak Modou Lo écrit hmm. waaye suuru làmb Modou balaa Modou di génn kër dina toog ak toog ak moom wala mu taxaw mu moom. ba Modou Lo bi muy dem Espagne sax di préparer moog Balla Gaye de àndoon na ak moom. waaw ñoom ñaar ñoo àndoon. léegi hmm. nag làmb dafa soxla saaru événement yi mel nii. te combat yi taxaw ci réew mi yëpp na waaye combat bu mel ni Gora Sock Fils de Balla ci taay ci Euh, ñu dox ko mu sotti ci benn fan benn jour lañ taxawal combat bi gaa liñ ci def nag bëri na kase yi ñu ci fay sax ñu ci bëri sontuñ ko ci woon mhm. waaye ñun événement daf ñuy jaral loolu ndax ñu war a bëree moom promoteur bëgg leen a tëgg yenn détail waru ko yàq mhm. dafa war a jar nga xaru ci pour indil ko amateur yi ndax seen première jàkkaarloo amateur yëpp dañ kontaan keroog tur ñu yàq journée bi mhm. fi may waxee yow nii kabu Gora Sock mu ngi kër Fils de Balla de Balla mu ngi kër Gora kon mooy mooy jour boobu nga naan kon lii euh, combat delloo ma sama combat delloo ma sama mbaxana la <laughs> ndax policier yi lennaa bi ñëw na téye leen kenn ku ci nekk ne du bàyyi na ma sama morom jox sama mbaxana góor a soog yóbbu na mbaxana Fils de Balla Fils de Balla yóbbu mbaxana Fils de Balla tey soo demee woon di ko interroger mu génne la kabu góor a góor a tamit soo demee këram woon la kabu Fils de Balla léegi nag su bés baa dañ leen defaral kuréelu kab rek tegal leen ku ci gagné <laughs> jël kab am na solo budget combat bi yegg na ci 10 millions ëpp na ko fils de Balla Gora ëpp na ko ñaari mbëri rek seen kase presque dix million la bokk la combat yi ci taxaw combat yi ay jeex jàmm su lay gaynde am na ay combat yu dooy waar ñu ci war a dugal. mais li ñu jaaxal cinq grands ci bëgg a def li ñu jaaxal mooy am na ci ay surprise yoo xamante ne mu ngi ci làmb ji wala yaa ngi ko ci fas yéene def amoo sponsor. amoo kenn koo xamante ne vraiment mu ngi lay mu ngi lay jàppale ci ci ci wàllu làmb rawatina sponsor yooyu ñu yaakaar nooy def bay bay bay décrocher ay combat yoo xamante ne budget bi day romb 10 millions. jam da ngaa bëri pexe nag. waa non yàlla def na ñun moom làmb mosuñ ci am sponsor. waaye heure bu ñu génnee rek amateur dinañ kontaan. xam na hmm. d' abord nit ku nekk yaa war a nekk sa sponsor bopp. Hmm. waaw mbër yi war nañ mën a sponsoriser seen bopp promoteur yi war nañ mën a sponsoriser seen bopp man chaque jour dama koy wax ne mbër yi ci bëri ëpp ñu ma supporter te lu ma gëm la. Hmm. dama jàpp ne su ma organiser mbër yi. ñi leen di ñëwal ak ñi may ñëwal ñoo yem. Mhm. te làmb tëgg journée même soo amee sponsor nga tëgg journée stade bi kenn nekku fa dañ naan kii boo ci gagné ay millions sax dañ naan dafa perte ndax stade bi amul nit fekk du loolu làmb mën nga ko tëgg balaa suuru làmb ci nga jot sa xaalis. Mhm. làmb nga tëgg ko stade bi fees tepp soo ne da ngaa perte ñu ne waxul dëgg stade bi ni mu mel. kon mhm. fii événement bu réussir mooy premier sponsor te yàlla mu ngi ñuy dimbale événement ñuy tëgg ngi réussir ndax amateur dañ leen indi lu ñu bëgg indi leen lu ñu sopp. tey soo gisee ñu xaru ci combat boobu góor soog fils de balle rek doy na waaye combat yi ñu ciy dugal ñooñu rek kenn ko ci yóbbu ci stade mu feesal ko. dëgg la te incha allah rabi cinq grands combats lañ bëgg a def ci journée boobu ndax mois de mars lañ koy organiser. Mhm. te yaakaar naa boo génnee ci at yi journée bi gën a rëy ci mois de mars ñoo ko organisé woon diggante Franc ak Bébé Saloum. maa la ko wax. stade bi ñu feesal ko ba tijji ci kaw zone bi. Mhm. kon suñu waree dellusiwaat mois de mars. Mhm. dañu war a def lu ëpp lu ñu defoon. Mhm. loolu moo tax ñu ñëw ci journée bi ak combat ci fas yéene dugg. dinañ ñëw ci mois de mars boobu bis bi nga xamante ne vraiment da ko sargalee jigéen ginnaaw loolu dañuy dem stadium Iba Mar xool combat bi doxoon ci diggante Ndiaye Tine ak Baye si Junior mu nekk combat boo xamante ne vraiment mbokk yi li leen doon wax rek tey combat yi jàpp ni mooy jël yi gën a rëy ci làmb tey moom lañ leen fas yéene indil. ci jàngat làmb ji ñu seetaanandoo ko ñu dem stade Jom Iba seetaan Baye ak Ndiaye Tine dellu si waat ci plateau bi ay ca ñu dem. gisuma waa Caaray Géej waaye actuellement ni tooguñu taxawuñu gisuma waa Bawal gisuma waa Medina waaye ñoom tooguñu toj na nen Ndiaye toj na nen arbitre bi woo ak Baye ñu ngi noonu. arbitre wax li règlement bi nangu ak li règlement bi bañ ñoom ñaar coup de sifflet moo leen di boole coup de sifflet moo leen di tàqale Baye Mandione Junior moo la féetee càmmoñ Ndiaye moo la féetee ndijoor arbitre bi laaj na ay siisam laaj na Baye Mandione arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 9 janvier 2022 ndeysaan Kajoor production Baye Mandione Junior Ndiaye Tine stade Iba Mar Diop ñu ngi noonu ndeysaan Baye Mandione féetee leen di càmmoñ Ndiaye Tine féetee leen di joor kii teg garde normal kii def fausse garde ndeysaan Ndiaye Tine fausse garde normal la Baye Mandione fausse garde la bu ngeen deggee garde normal ak fausse garde mooy kii jiital tànk càmmoñ loolu mooy garde normal ki jiital tànk ndijoor loolu mooy fausse garde waaye du dara ci bëre mooy tànk bi la jublu nga mën koo bëree moom ngay teg rek taxaw ñoom ñaar ku ci nekk ma ngay déglu moroomam Baye Mandione aj na garde bi rek di déglu Ndiaye Tine Ndiaye Tine tamit aj na garde bi rek di déglu Baye Mandione ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk ñu déglu sa morom ku ci nekk lan lañ la yóbbee ku ci nekk luñ la yabee ku ci nekk am na luñ ko yabee ku ci nekk am na luñ ko yabee ndaysaan ku ci nekk am na luñ ko yabee Ndiaye ak baay ma Mandione ñoom ñaare ngi noonu Ndiaye baay Baye Mandione Ndiaye Tine Baye Mandione déplacé wu nañ ñëwaat nañ ci digg géew bi dara xewagul cokkaas amagul mépp amagul waaj buy dem amagul waaye en lu mën a xew ñoom ñaar ñu ngi taxaw rek ku ne di déglu sa morom Baye Mandione caare la jugee caare géej ko indi Ndiaye Tine Bawol la jugee. waa Medina ko indi ak waa Bawol do naa jàpp ci loxo bi dóor bàyyi ma ñoon déplacé wu na dañoo nar a daa bëgg a dem ndeysaan daw nañ daje daw nañ daje Ndiaye Tine am na ngemb bàyyi ma ñoon Ndiaye caxabal na ko mu bañ wéeraat na ko bàyyi ma bañ na bàyyi ma bañ na Ndiaye Tine bàyyi ma Ndiaye Tine ngi door ci suuf Baye Mandione bañ na Ndiaye Tine def na action bu am solo sànq mais Baye Mandione da koo teggi loolooy bëre dafa na ko wala déet dafa diis takk na ko Baye Mandione takk na Baye Mandione takk na Baye Mandione takk na lu laaj Ndiaye sol na takk ba rëcceeku na Ndiaye Tine door na déplacé wu nañ ndeysaan stade bi yuuxu nañ xeex amagul waaye bëre nañ Baye Mandione koy déglu ma ngay seere téere bi Ndiaye Tine ñëw mu taxawoon taxawaat fa ndeysaan góor balaa nga koo yëpp ñam ko ñaari xale yi dañoo fas yéene wane seen bopp fu ñuy mujj Ndiaye Tine Baye Mandione Ndiaye Tine Baye Mandione Ndiaye Tine dóor na sànq daw jàppante ñu daje ñoom ñaar waaye ku ci jël coup mën naa jeexal sa lamb Baye Mandione ndeysaan ak Ndiaye Tine ikiri ba wal nekk daw na jëli ko dóor na daw jàpp ko jàppante na ñoom ñaar Baye Mandione Ndiaye Tine Ndiaye Tine fàqan ko Baye Mandione rëpp na bañ na Ndiaye lu mu nar daa bëgg a samp bopp bi wala déet yanu na ko door na ko ci suuf la ilaha illallah eh la ilaha illallah eh Ndiaye daan na Baye Mandione jël bu rëy jël bi Balla Gaye 2 daanoon Modou Lo moom la Ndiaye Tine daan Baye Mandione mbokk yi gis ngeen jël boobu Baye Mandione euh, euh, nu mu tuddati Ndiaye Tine daan Baye Mandione Junior mu nekk jël boo xamante ne vraiment jàpp naa ni jël du ko dàq ci at bi déedéet jël boobu dafay fàttali ñu bari ci làmb bis bi Balla de doon bëreek Modou Lo stade Léopold Sédar Senghor jël bi même action bi mu ko même ni mu ko daanee ñu bari seen xel dafa dellu siwaat ci Balla ak Modou muy wane nii kon xale yi ñu ngi gën a góorgóorluwaat mais kile làmb yi mu ngi gën a góorgóorlu mu ngi gën a génn ci làmb ñuy félicité waat bu baax a baax Ndiaye Tine di wax ni ñu ngi dégg ay combats yoo xam ni promoteurs yi ñu ngi koy bëgg a dox loolu mooy wane ni jël bi mu daan moo ko may loolu. ma Mandione Junior am na ay adversaires yoo xamante ne ñu ngi dégg tamit bëgg bëgg nañu boole seeni combat ba tey ñu ngi koy xaar rek sa diggante ak Bijou ngoone nga jël ko muy jigéen. le 20 mars nga organiser ku mel ni Fils de Balla euh, ak euh, ak euh, Gora Sock dara jaale ko biisu ngoone seen diggante yeen ñaar lan la. waaw comme maa ngi la wax naa la fi sànq ne la le 19 2019. Mm. le 8 mars dafa tombé woon ak dimanche ñun ñoo ko organisé woon. Mm. Franck Bébé Saloum muy journée boo xam ne yëpp ay jigéen lañ ko jagleeloon. tuddee ci Mayba doomu Père Ba. Mm-hmm. ak euh, Ndumbe bu Mbambilor. Mhm. journée bi ñu jagleel ko ay jigéen depuis mhm. boobu lañ ne chaque année. Mhm. su mois de mars jotee dinañ organiser lamb ju événement bu toll nii wala bu ko ëpp doole. ñaari at yi nag mm, lamb amut ndax Covid bi moo taxoon ren su ñu ñëwee organiser lu mel nii fas yéene sargal jigéen bisu ngoone gis nañ ne jigéen joo xam ne la jàmbaar la gëm na boppam mu ngi liggéey. di liggéey ci làmb lamb tey spectacle yi nga gis yu naaj yi yëpp moo koy def. Mhm. promoteurs yi bëri mu nekk seen staff di jël ay mbëri làmb yoo xam ne tey ñu ci bëri dañ leen xaw a fàtte mu leen di jël di leen invité ci plateau nekk koo xam ni day leer na kii bu ko neexoon mu ne li may liggéey sore na ak lamb. confrontation laay def damay dem invité ñeneen waaye ay nitu lamb ak ñëpp da ciy liggéey bu lamb jotee nga gis ko mu sol blouson am ñëw ci làmb ji di jaabante ci jigéen. Mhm. kooku suñ ñëwee di def sargal jigéen tëb ko wax dëgg yàlla kon li ñuy wax du dëgg si ñun ndax bay sa weewu tànk. Mm-hmm. booy sargal jigéen dañuy xool jigéen ñi nga xam ne jàmbaar lañu gëm nañ seen bopp nangu dañu liggéey. Mm-hmm. nga sargal leen xañ naa moom moo ci fëseegum waaye yeneen yi ci yëpp ay jigéen lañ koy tuddee képp kuy jigéen nekk jàmbaar nekk liggéeykat gëm sa bopp. jàppal ne la 20 mars bis la. jàpp da ngaa sérieux quoi man damay gis jawekee bu mën a tooñ bëri histoire ku leen nga joteeg moom te tey fi mu toll nii da nga sérieux quoi da nga concentré wu di jigéen yi te man xam naa la jàpp meloo nii meloo nii. lu tax nga ne melu ma nii da nga ne jamaïcain bu bëri histoire. waaye du ah. tooñ. du la du tooñ. waaw ci tooñ nga dëkk. non non man mii chaque jour nga tooñ ma. <laughs> tooñ ma tooñ. père gas tooñ ñëpp. waaw yow ma leen tooñ samay père lañ père gas sama père la yow père gas kay moom may tooñ ndax père gas dégg nga keroog li ma wax ne ma xam nga ne bu doon jamono yaay jàngale soo demee Gambie ci kaso gi ngay dee. <laughs> ko nuyu di ko jox wàccuwaayam. Mm. jëri man du ma tooñ bëri naa problème nag waaye du ma tooñ te doole rek tooñ la. Mm-hmm. léeg-léeg nit da lay def dara nga jàpp ne kii xaj na daf la xeeb Hmm. wala daf la bëgg a néewal doole loolu moo tax ngay wane sa bopp waaye man du ma tooñ ko yàlla bind. Hmm. waaye nag wax dëgg yàlla damay defante. da ngay defante Jamaïcain euh, le le 20 mars bi. Hmm. nan nga def ba am ko parce que amu woon ci mois de mars bi mu nekkoon loo xamante ne vraiment posé woon na problème ba ci mbër yi sax am na ci mbër moo xamante ni déggoon naa ñu ne euh, bu bëriwul ci mois de mars bi day delloo avance bi noo fexee def ak say lijjanteeg say pexe Jamaïcain ba am 20 mars boobu. waaw loo nga li nga wax nii moom dëgg la xam nga yow moom sa information xaw ma foo ko jëlee. Ah, man ci da ngay ñëw sama néeg da ngay dégg may wax téléphone sax nga ciy for. <laughs> boo ñëwee sa plateau moom ngay indi di ko fi <laughs> débat. li nga wax dëgg la ndax tamit nit tamit dañuy nangu yenn yi. Mhm. combat bi mu ngi taxawoon depuis novembre. fin fin octobre. bi mu taxawee mbëri ci boppam laaj nañ ñu bañ date la bëree ñu leen ah ñun joxewuñu date CNC moo joxe date. Mhm. munuñ leen a wax ne da ngeen bëree janvier wala février waaye Mm-hmm. balaa koor gi di ngeen bëree. Mm-hmm. ndax c'est normal munoo taxawal combat bu toll ni góor a soog fils de Balla. Mm-hmm. nga war a toog benn 6 mois munoo am date boo ko organisé. bi ñu xëyee dimanche dañ ko taxawal lundi dañ bind lettre dem dugal CNG. muy le mars soxla woon ne. avant koor gi ñu organisé ko. léegi le mars bi ñu woowee nañu le mars bi kat jox nañ ko Gaston te yéen yéen a ko njëkkoon laaj ñu leen non. tey combat bu toll nii Eumeu seen ak Bombardier hmm. ñun duñ ko xañ askan wi te père Gaston suñu père la. dëgg la wax dëgg yàlla CNG suñ defee loolu. Hmm. def nañ lu jaadu quoi ndax yenn hmm. combat yi. dañ leen war di xam nga favoriser. combat euh, suñu combat budget bi seer na waaye combat centaine de millions askan wi di ko soxla. mu bokk ci combat yi nga xam ne nii àdduna bi dañ koy soxla. su leen CNG joxee dat yu mel noonu ñun dañ siy ànd. dëgg la waaye suñu jëlee dat yu mel noonu ba pare jox leen ko ñun ñi nga xam ne bindoon nañ suñu lettre. dugal ko depuis novembre war nañu wax ne ah dat bii de dañ ko jox journée bi waaye yéen tamit jël leen date yi. Hmm. loolu lépp amu ci. Hmm. bi ñu ñëwee avant ñuy ñëwaat pour yëg ne joxe nañ date bi ñu war a retenir xool beneen date fekk promoteurs yi jël nañ date yëpp. di hmm. des fii ba mars bi date amatu fi du samedi du dimanche. fête yëpp férié yëpp gars yi jël nañ leen. léegi mbër mi moom du comprendre day yaakaar ne da gis mu ne sama combat moo njëkk a taxaw. léegi combat yi bi ñu taxawee njëkkumaa am date njëkkumaa am date fekk du loolu. sa promoteur date bi mu noonu dem di uti. CNC mhm. teelu ko ko ci wax waaw wala déet. CNC tamit foofu ñu gën leen a ñaax rek promoteur bu bindee lettre soxla date. Mhm. dans une semaine war nga ko tontu. ne ko date bii kat munoo ko am munoo ko am keneen moo ko mun a am moom waaw mu dem xooli leneen. su taxawee di yaakaar di yaakaar ba dara ñaan ma maa nga ko date bi jox nañ ko keneen. nga mhm. ko indil jafe-jafe. waaye demee noonu mbëri di aalu benn mbër ci kaay moom bëre day delloo avance bi bi mu ne day delloo avance bi tamit ñun jël nañ suñu matuwaay ah ndax làmb yaatu na. làmb mbër yi fi nekk bëri nañ. bi mu ne day delloo avance bi woo beneen cas ba di ko utal adversaire. yaa ngi dégg ndax bi mu ne day delloo avance man wax naa leen ah am na benn pexe bu ma yaakaar. ndax ku ci mel ni perte vague yi dama koy cité. champion la woon bëree na xam na lu nekk ci làmb. dëgg la te mu ngi encadré làmb du xool lu yàq làmb mu koy def. Mhm. lépp lu mu mën a def ba làmp jëm ci kanam dina ko def. dëgg la ma ne ko léegi de moom laa yaakaar ndax moom amoon na benn date boo xam ne ñoom ñoo ko jëloon seen turu association muy les sages. su si sësee. Hmm. su ma demee waxtaan ak moom am naa yaakaar ne dina ma jox date bi. waaye nag su fekkee dem naa am ma joxuma ko amaatuma pexe. Hmm. après weeru koor bi ngeen di bëree mbër mi ne moom du bëreewaat euh, après koor gi du bëree ma dem di ut beneen adversaire pour hmm. beneen kaa bi. yàlla def ma dem seeti ko expliquer ko situation bi mu demee baat tontu la mu ne ma vraiment ñun dañuy organiser ñun tëgguñu làmb lii dañ koy def pour suñu kuréel. Hmm. comme nag situation bi toll na fii nañ ànd CNC man dinaa la jox date bi man ñu mun nañu xaar ba après koor gi. loolu nag wax dëgg yàlla kon journée bi su demee ba mën a am fii koor gi. Hmm. moom dañ ko ci saluer bu baax. Hmm. di ko ñaanal yàlla yokk ko kattanal ko ba lépp lu mu bëgg ci làmb yàlla defal ko ko ndax nit ku baax la. su ko neexoon lii yëpp du ko ci fekk waaye tey Gora Sock fils de Balla suñu demee bañ ne dañuy bëree moom moo tax ndax combat bi à 80 pour cent yàqu woon na. dëgg ndax tamit ñun du ñu jël xaalis yu ñu am ñëw def ko ci mbër. bu ñu la joxee xaalis ñun ñoo la gën a bëgg nga bëree foofu ndax suñu sañoon da ngay bëree dimanche ñu jotaat suñu xaalis. dëgg la ba du ñu la jox fay la kase ba pare nga ñuy conditionné du ñu bëree lii du ñu bëree lii làmb yaatu na li ma la joxoon nga may delloo ma dem jox ko sa morom. ndax million fii doo ko dugal ci kër kenn mu la koy delloo. bari moo xam ne mën nga toog saison bi doo bëree su la promoteur ñëwee seet ci fay xaalis kooku su ko sañoon chaque dimanche mu bëre nga bëre Mm-hmm. waaye moom mënul jox boppam tat CNG ñooy joxe tat CNG ñooy xool ñu leen neex ñu jox leen tat. man mii su ma bëggee combat doo ma tëggal doo ma jox avance. xam naa ñi ngay bëre. yow jërë jox avance yaa ngi jox sa bopp avance. kan laay bëre. xam naa ko bul tax ma. waaw parce yaa ngi nii lii xam naa say combat yaa koy lijjantil sa fi nga koy lijjantee xam naa ko TikTok. <laughs> yàlla yàlla àtte bala yow. amiin allah mooy sosal de. sosal la sosal de combat laa woon combat non non mais yaa ngi sosal. yaa ngi sosal loolu sosal amu ci di. yaa ngi bëgg a bëree xam naa ñi ngay bëre. ah. <laughs> doo ma laaj yaa ko kat der la sama gars yi loolu garaawul nga bàyyi bum combat nga ma laaj yaa ngi bëree. waaw ah. waxuma avance laa wax nga jox ma làmb ma dem arène nationale nga wutal ma adversaire ñu ne tey jii li wasaare mooy bëre. ak diw adversaire yi ma mën a bëree ci làmb bëri na Gora Sock mënulaa woo laaj la avance nga dem na di ko wax li tontu nii wala nga koy wax fils de Balla lan moo tax nga yeb ma man. non man yebu ma la man. dama da nga ma yeb kay ñoom Gora Sock utaluñ seen bopp adversaire te yow yaay utal sa bopp adversaire gis naa ñi ngay bëre. waaw ah, na merci. yaa ngi lijjanti say combat di ah, <laughs> ah, bu baax Jamaïcain la ñuy ñëw ci démb. Mm. nekkoon na jour démb moo nekkoon euh, le 23. Euh, moo nekkoon dimanche euh, le 23 euh, janvier 2022 suñ ko waxee suñu xel day dem ci élection locale yi nga xamante ni vraiment gox yi ak gox goxaan yi ku ci nekk bëggoon na porter li nga xamante ne mooy mooy mooy sa drapeau gox. tey mu nekkoon loo xamante ne vraiment démb résultat yi génn na euh, xëy na du ñàkk am nga ci xalaat wala gis-gis boo xamante ni gis nga ko ndax ci nit ci làmb ngay tëgg te des fois nga tëgg làmb sa tuddee ko benn maire wala adjoint maire wala ministre wala yu mel noonu démb nan nga gisee résultat bi nga xamante ni jot nga ko dégg ci ci ci ci ci rajo bi. Hmm. waaw jëli li xewoon démb yàgg nañ ko waaj ay at. at yëpp soo déggee élection locale yi kañ lañ koy organiser yàlla def démb ñu organiser ko di ci féliciter président de la république. Hmm. ndax def noonu li ko war. Hmm. fal nañ ko ci en tant que président. Hmm. askan wi ñu ngi doon laaj li ñu tëgg ko ci biir euh, daaw bi Covid bi jeexee ñu ne ren élection yi dina am yàlla hmm. def ñu def ko jàpp date bi la 23 janvier. Sénégal doon ko xaar coow li bëri woon na waaye yàlla def nañu organiser ko ci jàmm que le maire gagne. ñi maire gañe nañu. ba lii yëpp njàngat la rek. Euh, sunu borom jili yàlla moo fi nekk tey. koo ci gis mu ne dafa jàng. Mm-hmm. yaakaar naa ENAM moom bokk na ci ñoom fi ñu gën a fonk ci réew mi. Mm-hmm. ba boo ci dégg rek daanaka kii ENAM la génnee ENAM boobu nga nekkoon yaa ngi fa nekkoon lu mat mille personnes. Mm-hmm. dàqoo leen a jàng. ëppoo leen pexe ëppoo leen i mbokk. yàlla soppi la ci ñu jël la fal la dénk la poste nga yor ko ki fa teg sa nawle la. moom mënul dajale fépp waaye bu jëlee ci poste jox la ko yow tamit war nga gestu ne ah. mankat dama daj ay coono fii ak fii laa jaar lii laa daj ba egg si fii nga gestuwaat askan wi ñi nga xam ne nii yaa leen jiite. Mm-hmm. bot ñu ci bëri danga leen di fal ñu tëju seeni bureau du ñu lijjanti kenn du ñu faale kenn suñ demee ba élection jot ci nga leen di door a gis ñu génn takk seeni caravane di dem nit ñi léegi yeewu nañ li xew démb exemple la ci ñu bari mm-hmm. boo nekkee ay nit da leen nawloo mais li ma jaaxal dafa am lu ma jaaxal. man dama doon gis politiciens yi d'habitude ñi ñi perte sax ci ci gox bi ñu yaakaaroon ni war nañ fa mën a gañe seen caravane bu rombaan mbooloo mi leen mi ñuy àndal te bu ñu bu ñu bi bi yi jotee résultat yi bi muy génn fi nga yaakaaroon ni mun nga faa am cent sax deux pour cent nga fa am. waaw loolu mooy mooy fi ma bëgg a ñëw rek ñu ñi léegi yeewu nañ mhm. jili élection léegi mag ñi dematuñu xale yi ñooy voté. dëgg te xale yëpp a yeewu. nit ki mënoo ñëw ci goxam nekk fa su la soxlaa du la gis su la soxlaa ñaan ko bindal lettre jaaral fii benn cinq personnes ñoo lay dar ni dar man dara di la koñeek nit ñi <laughs> ku wax ñu naan ko ni te ñooñu cinq personnes yooyu boo leen seetee ba seet sa ñu ci bëri amuñu carte d'identité mm-hmm. léegi nag kenn ki nga doon néewal doole di ko ñàkkal fayda te seen waa kër mu am fa baat bu élection jotee day xëy fajar dem ci kër gi ne leen bu kenn wateel kii fii léegi nit ñi dañuy yeewu xaalis falatul kenn da ngay nawloo ñi nga nekkal jox leen cër boo amee bés ñu mun la ko delloo. président bi Macky Sall def na li ko war de daf leen fal ñoom ñëpp comme ni ko père di waxee da leen dañ leen di jox poste ñi ñu nekkal duñ leen nawloo. Hmm. duñ nawloo askan bi duñ leen jox cër dañuy dem ba fàttalu leen fal ku fàttalu la fal nag loola folli day yomb. Hmm. lii daal exemple la pour ñëpp si ñu gañee ñu gañee nañ xool xam li tax ñu gañe xam ne jeunes yi ñoo leen fatal xale yi ñoo leen fal. Hmm. ñu gestuwaat xale yi 4 ans soriwul 4 5 ans soriwul. ku ci falu ba fàtte ñi la fal yaakaar ne bis bu mel ni du ñëwaat bis baa ngi ñëwaat du yàgg dara. sa xaritu pare yi ñoo ñu ñu bëggoon maire yi ñoo gañe wala déet. noo bul ne sa xaritu pare yi man dama jëloon. sa xaritu maire ñi ñi nekk ci mairie bi. c'est-à-dire yi am nga ci ay ñoo xamante ne say xarit lañ say nit lañ. jiili politiciens yi man ci li may liggéey. Mhm. képp ku ko fonk ma fonk la. ndax am na si ñoo xam ne politiciens yoo xam ne tey ñun làmb lañ am man ci ñoom ñooy taxaw naan jeunes yi bëgguñu liggéey ñii fii la ñuy nekk di jël gaal yi lu ne ñu ñuy wax kenn ku ci nekk tey yaa ngi am ci loo jàpp. Hmm. tey bunu boo jëloon sa caméra bi dugg ci dëkk bi jeune boo gis muy góorgóor du liggéey soo ko laajee sa xaalis foo jëlee du ko jàppale moo góorgóorlu boppam ba ciy liggéey. dëgg la kon ñoom lan lañ ñu defal. dara. dara defaluñu ko. Hmm. tey ñun làmb lañ am man làmb laa am képp ku ko fonk maa ngi loon lay ñaanal yàlla may la ndam te am naa yaakaar ne ñëpp ñu nga xam ne nii tey ñu ngi doon xëccoo seeni gox bëgg làmb di jàppale xale yi ci nekk yàlla jox na leen ndam. damay ñëw foofu Jamaïcain parce que dama seetlu yow tuddee nga fi parrain bis ñëwul yónneewul mais damay gis ñoo xamante ne yeneen promoteur yoo xamante ne dañuy gis koo xamante ne vraiment nit la ko baax di liggéey ci réew mi ñu tuddee ko bis du ñëw sax moom ci bis ba mais day ne ay nitam lan moo tax ñi nga xamante ne jàpp nañ ne ay autorité lañ ci dëkk bi nekk ay kilifa bu ñu leen dara jaalee bis pour ñoom bu ñu ñëwee ci stade bi gàcce la ci ñoom wala lan moo tax ñuy yónnee te toog seen biir kër yi ñu xam ne ñu ngi seen biir kër yi. waaw loolu soo ko gisee mooy li ma wax rek ñu ci bëri bëgguñu làmb. Hmm. ñu ci bëri bëgguñu làmb tey jëli koo xamul na nga koy def ni mu la dafa tax. tey mën ngaa bañ dara sax waaye nga bëgg ko ngir dara ndax làmb boo xoolee ñi ci nekk yëpp quatre ku ci am 45 ans da ngay bàyyi bëre. dëgg la kon làmbu ñu ci nekk yëpp ay ndaw lañ même su fekkee bëggoo ko du sa bokkul sa doxalin ak sa sa dundin. Hmm. ñi koy def nekk ay xale yow ñu dénk la pour nga jàppale ndaw ñi da war a bëgg mbir moomu ngir ñooñu. Hmm. waaye tey am na si ñoo xam ne dem seeti leen pour affaire parrainage sax ci affaire làmb ñu ne la non je ne sais pas de lutte affaire non du ma dem làmb su bëree histoire kilifa yi mel ni yéen su ngeen ci ñëw di sensibiliser ndaw ñi bu yàggee. histoire bu ñu doon def ñu bàyyi ko. dëgg la ba loolu lañ la wax ñii dañ leen koy tuddee ñu dem ba bés bi duñ ñëw duñu yónnee. Hmm. nit ki nag da ngay am fulla li nga nekk képp koo xeeb nga xeeb ko tey. mais gis naa fi promoteur bu tëgg plein campagne mu tuddee parrain bis mu waroon mun a ñëw sax campagne foofu ñëwut daa yónnee te ñi mu hmm. yónnee mu ngi mel ni man ñu tuddee ma journée au lieu ma yónnee ay ay homme de base nit ñu am valeur yónni ay Fa ay Basiro mais ma yónnee ay Adama. ay xalil ay ay ay ay sama waa ay seen ñooñu laay yónni quoi. loolu daal loolu daal mooy li ma la wax rek soo ko gisee ñu ci bëri. bugguñu làmb te koo ci jubbu ci koñ benn mbëru làmb génn. Mm. su defee caravane nga def caravane yow sa oto bi pneu secours bi rek a lay topp. bu élection jotee ñu bëgg ñëw utiliser waa làmb ji utiliser jeunes yi suñu faloo fàtte leen soo ñëwee dee leen non bindal lettre jaaral fii soo leen tuddee bis du ñëw des na ci ñoom ñu nekk ci njabootu làmb nañ am fulla. Mm. jiili. dafa am ñaar ñoo xam ne fu ma jaar cité leen muy Mame Boye Diao mhm. ak Matar Ba mhm. ministre des sports Matar Ba mhm. bis boo ko mënta tuddee day bàyyi soxlaam ñëw toog ci la dëgg la loolu moom mën naa te ministre la dëgg la Mame Boye Diao tamit noonu directeur domaine bis boo ko tuddee promoteur bu ko mës a tuddee bés ñëw na moo tax dëgg la seen gox yi dañ faa da gañe dóor kay bi ñu Matar Ba Fatick dafa wulli Mame Boye Diao dafa gañe euh, Kolda te dafa demal boppam benn bokk yaakaar teewu moom moo dem ak lig si boppam gañe mhm. ba ñi nga xam ni ñun ci li ñuy yëngu yëngatuwuñ ci bëgguñ ko bu élection jotee nañ am fulla mbëri nañ dem ànd ak seen i supporters ak ñu ñu bëgg yëpp votel ñeneen mhm. ñooñu tamit ñu xam ne làmb dafa bokk ci réew mi ñu koy def ay sénégalais lañ ay étranger mhm. ci réew mi lañu dëkk opté di bëree bu leen état jàppale woon ñu nekk ci leneen yow nga ñëw ñu fal la bu ñu la waxee làmb nga ne déedéet jàppale woo xale yi dimbalewoo kenn nekk ci lu la neex bu élection jotee nga bëgg ñu votel la am na si ñoo xam ne man damaa ruus sax si ñu leen gagné. am na solo mbokk yi dañuy dem arène nationale ci combat boo xamante ne mu ngi doxoon ci ñaari xale muy Guiro Seras ak Nokia bokk na ci ñetteel combat yi nga xamante ne jàpp nañ ni ci ci ci ci at bi wala ci weer bi ci at bi dina bokk ci combat yi ci dàq dañuy dem arène nationale xool diggante combat Guiro Seras ak Nokia dellusiwaat ci plateau bi ay ca ñu dem. Guiro Seras ci arène ba dellusiwaat. Guiro Séras a ngay dellu gannaaw Nokia ngay dox ci kawam Guiro Séras Nokia Guiro wàcc na ba tolloog moom Nokia cokkaas na léegi Nokaas Nokia Guiro Séras ñooy noonu Guiro moo ngem moo ngem lu ci mooso bu weex bi yooyu yëpp wut la daw na jël ko. jël na tànk ba jël na daan daan na ko wala déet. daanu ko war na ko ndomba doo ci génn Nokia doo ci génn Giro daa mën a bëre Nokia doo ci génn doo ci génn daa mën a bëre Giro war na ko ndomba Giro na ko ndomba xoolal ma Nokia bu génnee ci lii ma xam ne ndaanaan la ci bëre lii oh. bu ma ko yaa génnee ma xam ne ndaanaan la na dama koy war ndomba bu baax Ousseyn gën a jàpp de gën nii mu ko waree ndomba wóorut à ma moment Nokia mun naa génn en tout cas quatre am na wala déedéet amagul ba tey en tout cas tànk Nokia bi ba léegi mu gi ci kaw. giroo na fi mu féete Nokia bu doon maay moom Ousseyn damay génn saako yi damay fexe raam parce que saako yi jege na ma génn jàmbaar dawul dafa wuti doole. giroo na bu doon maay moom damay def rotation gën jàpp bu baax. waaw mel ni mu ngi lay dégg téye ko bu baax a baax a baax bañ mu rëcc. parce que lii penalty la ci làmb. mbër bu ko am da nga koo war a exploiter. jël séance Nokia. la nga wax loolu la Guiro bëgg a def gis nga. gis nga dama la waxoon Ousseyn. gis nga da koy gën a da koy gën a jege. parce que jege boobu mooy avantage am. Nokia. Guiro daan na ko. Guiro daan na Nokia. daan na Nokia. Guiro daan na Nokia. Guiro séance daan na Nokia. Guiro séance daan na Nokia. Guiro séance daan na Nokia. Guiro séance daan na Nokia. jugóol ci koom Guiro daan na ko. Guiro séance daan na Nokia. jël ko Guiro. Euh, gis ngeen combat boobu doxoon ci diggante Giro Seras ak Nokia vraiment Giro daan ko jël boo xamante ni jël bu rëy la bu amul benn werante moom it mu wanewaat boppam ci làmb muy ñett xale yoo xamante ne ku ci nekk ci ci ci bëre bi action bu mu daanee moroomam bokkul boo xoolee Njaay Tine dafa jàpp baay ma Mandione samp bopp bi yëkkati ko ba ci kaw dóor ci suuf nga xool ki mel ni Bébé Balla ak ak Ram Diop. Euh, Balla da ko mbot mbot boo xamante ni jël bu rëy la nga gis Giro Seras dafa wër ba ki nga xamante ni mooy Nokia mais bi muy jug du ko tegal si daan ko jël bu amul benn werante mu nekk loo xamante ni vraiment dañ leen di ñoom xale yi di leen wax ñu gën a góorgóorlu parce que yaakaar naa jël yi rëy yi ñuy séentu ci làmb xale ya koy daan ponkal yi ñu baal ma ñi ñu tuddee ponkal ñi nga xamante ne ñooy mbër 80 millions 40 millions 50 millions bu ñëwee stade dañuy buuxante rek buuxante teg xel <laughs> am naa am naa yenn yi dinañ ma sànni xeer sax mais du ma la ñàkk parce que des fois moom du ñàkk nga xaw a jël benn kaba rek dóor ko ponkale la man nag ragal fii te day xaja wërsëg ndax mbëri ndaw yi ñooy suma xarit te it man ñoom laa bëgg te man ñoom laa bëgg di àndal ndax ñoom ñooy sama gaañ jam am nga soxna. maa ngi yow yem rek boo amee am na soo amagul maa ngi man moom amuma àdduna bépp xam nañu man tamit amaguma ci li nga nekk ci la ndax yow am nga koy bëgganteel. waaw am naa ko man képp ku mën a bëgganteel nga yàqu <laughs> xam nga xam nga la mooy problème bi. Uh-huh. man dama la invité. Uh-huh. pour ma lay laaj ngay tontu mais su uh-huh. fekkee dama lay laaj nga bëgg di ma laaj kon. invitation bi amatul njëriñ non mais man dama la laaj ba xam parce que àdduna bi sénégalais yi lay seetaan. aw ma soxna mais am na koy bëgganteel. amaguma ko may bëgganteeg. bëggantewoo kenn. non non. kon ñu ngi jàpp ni yow yaa ngi bëgganteek ñoom ñu. bu yeboo ñu xam ne jàpp ne maa ngi bëgganteeg moom yow koo yëg ne maa ngi bëgg bëgganteeg moom sax yaa koy yàq yow moom xaw ma lan laa la def. rendez-vous <laughs> maa lay jaajëfal bu baax parce que xam naa ne lii la ñuy jàpp fooy barab boobu rek waa sànq yaa ngi wax lu am solo mbëri ndaw yi ñooy bëree bëri bu neex. Mm. ah làmb ji gis nga de. mbëri mag yi combat yi taxaw des na. Mm-hmm. ñu xam nga. làmb yi fi am yëpp yàlla def mu yegg ci jàmm. Mm-hmm. ndax ñu ngi jëm ci Modou Lo Ama Baldé jëm ci ah, Bombardier Ama Sène jëm ci Gora Sock fils de Balla. Mm-hmm. combat yooyu combat yi mag lañ wax. dëgg yàlla Balla Gaye Balla Gaye Boy Niang noonu ñooñu ñëwagul yu am dat ci la ñuy mm-hmm. wax. Mm-hmm. ñooñu ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm ak bépp combat bu taxaw. incha allah waaw. Mm-hmm. ñu ñaan yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm la 27 am na journée yu mag Fallou Ndiaye da ciy tëgg caatu yarax bil désert. Jokkel aada Fass. boo demee Iba Mar tamit mbay guy gi sar ko. ñu jëmboo. ma loolu damay wane ne làmb mu ngi avancé. ñu ngi ñaanal promoteur yooyu yëpp seen bis ñu yegg seeg jàmm dugg seeg bisimilah rahmaani rahiim génn ñoom presse yi ñëpp gaa yëpp ku ci nekk am nga dat ñoom sans production. combat yi yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu dugg seeg bisimilah rahmaani rahiim génn seeg alhamdulilah rabbil alamin am na xaalis. non lamb jiili am na xaalis amul xaalis. da ciy oh. nekk rek ngir bañ a toog. xam nga lu oh, am na xaalis mu ne am xaalis amul xaalis. waaw non am na xaalis amul xaalis xam nga doone amul xaalis. ndax non déglu ma du ma ne amul xaalis. yow yaa ngi tëgg journée boo tëgg sa ñett. waa doo déglu ma loo musul def ci at bi nga def tëgg fi ñetti combat yoo xamante ne vraiment ci diggante trois mois wala quatre mois nga fi tëgg te journée yëpp journée yu mag la. waa da nga may dagg te jéggale gu ma balaa ngaa pes gi mu sàmm nga xam li muy wëlis jili. Pape Ndoye dama ne la na xaalis Abou Niasse yaa ko tëgg. jili dama ne la am na xaalis ne la amul xaalis. Pape Ndoye Abou Niasse yaa ko tëgg. waaw foo ko tëggee woon stade Iba Mar. Iba Mar waaw. combat boobu stade bi dafa fees del. del waaw. yàggul tuuti foo ko yóbbu. arène nationale. mu nekk na boo xamante ni macha allah. waaw yaa gàttal tuuti nga tëgg taqe ak kan. Pape Ndoye. foo ko yóbbu. arène nationale kon kay làmb gi dox ci yow. waaw non ñett jàmm loolu mosoo ko def yow tamit non santal yàlla leen làmb gi dox. ba bu la doxul de man mun a maa bu ragal ñi nga xam ne dañoo bëgg dugg ci làmb. ñëw xam naa fu ma ko teg danga ma laaj. ma ne la am na xaalis amul xaalis laaj ma da ngay déglu ma tojol la loolu lu tax ma ne am na xaalis amul xaalis am na ñu ciy dugg di ci gis seen bopp waaye am na ñoo xam amul ci xaalis waaye am na mbër yoo xam ne mënuñu am un million kase ñooñu amuñ ci xaalis dëgg loolu laay wax ba ci politique bi sax mbëri ndaw yi ñoo jàpp ñu mag ñu wulli leen bañ na nem waaw. gis nga maa ngi koy jaajëfal bu baax démb rek nga li xew ci réew mi. ndeysaan maa lay jaajëfal bu baax fi ne de ñi gagné ñi gagné gars yi kenn amul ci 30 ans. man gis naa ci ñoo xam ne gagné nañ ji di. boo leen fëggoon seen compte un million nekku ci. Mhm. loolu mooy war nga xam ne peuple bi ñëw décidé président de la république na jël matuwaayam ñu koy liggéeyal na leen fi bàyyi ñu ko liggéeylu na leen yóbbu ci àll bi ñu bàyyi te àll bi rek non dañu war a <laughs> non ji li mënuñ soxla ci réew mi siin lañ koy jëlee wala inde <laughs> ceeb am nañu fi mu nekk fii xatal Dakar ñu jox leen ay post amuñ fi njëriñ nañ leen yóbbu ci àll bi tas leen ut bàyyil utal leen ay tool ñuy bàyyi bàyyil seen place hmm. ñu leen dénk ay direction ñu ñu jox leen ay poste ministère mérité wuñ ko dañu waxante dëgg hmm. état mun jël responsabilité yooyu yëpp teg ko sa loxo liggéeyoo dara jàppale woo kenn tëju sa bureau say mbokk nga fi nekkal lu ñu la jox nga lekk yaakaar ne bu élection jotee da ngay ñëw utiliser nit ñi président na yeewu xool liggéeykat yi bu mu xool ne kii bokk naa ak moom gis-gis kii bokk ak moom gis-gis képp ku amal njëriñ réew mi na la jël teg la ci wetam ngeen liggéey. ñu amalul njëriñ réew mi poste yu ñu nekk mérito wuñ ko ne leen fa jëlee ku ci mën a bàyyi nga bàyyi ku ci mën a sàmmi nga sàmmi man loolu la am na ma ci wax. am na solo ma koy jaajëfal bu baax moom jam production moom laa dalaloon tey ci jàngat làmb ji ngir bëgg ñu waxtaanee lu baree bari ci làmb waaye gis ngeen liñ ci jot a jukki yëpp waxtaanee ko yaakaar naa lu ci nekk njariñ la ci làmb ndax li ñu waxtaan yëpp génnu ci làmb ndax ñoom ñi nga xamante ne ñooy promoteurs yi saa ñu tëggee dañuy tuddee ay ñi nga xamante ne ay politiciens lañ wala ay autorité lañ ci dëkk bi ñu jël ay bis dara jaale leen ko kon bu élection amee démb c'est normal mu joxe ci li nga xamante ne mooy xalaatam maa ngi lay jaajëfal bu baax di kontaan ci teew bi nga xamante ni teew nga ko fii ci wasaare di la xamante ni wasaare moom sa kër la. waaw maa ngi lay nuyu yow tamit bu baax di la ziar di nuyu ñu nekk wasaare yëpp. Mm. di nuyu baabu maa ngi koy siyaar baax sama xarit la di ko ñaanal jàmm xewal projet yi mu nekk yàlla moo mottali lépp. Mhm. di nuyu sama directeur Mansour Ba. Mhm. maa ngi koy siyaar bu baax mu ngi France. Mhm. di ko nuyu di nuyu waa France yëpp di nuyu sama pap père Ba ak njabootam gi yëpp. di nuyu sama pap Mamadou Mahdi Ibrahima ak doomam Cheikh Baye Mahdi. di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yëpp jiili. di sàkku si ñëpp ñaan di ñaanal ñëpp. di wax euh, amateurs yi réew mi askan wi. le 20 mars na ñëpp génn képp kuy jigéen nag nekk jàmbaar. jàppal ne la 20 mars la 20 mars la. kon kay jigéen buy ñëw. jigéen doo dagg billet waaw amul amul benn problème. <laughs> jigéen bu ñëw mën ngaa dugg gratuit. jigéen ah jàmm bu ñëw du dagg bu ñëw du dagg billet. ay jigéen maa leen ko may gratuit nañ ñëw seetaan góor ñi suñu ñëwee góor ñëw dagg ñaari billet. <laughs> góor war a soutenir jigéen ñi si bis bi dëgg la jigéen ñooy suñu yaay ñooy seer ñooy suñu dëpp. am solo xam nga tey boo xëyee gis mel ni jigéen ñee tax jiidi dëgg la jërëjëf. bi ma lay xam euh. ay cinq ans ci gannaaw. boobu duggagoo ci milieu bi. Ah, ay carax laa xam nga ay carax waaye bi nga demee ba xam nga xale yi naan jiili jiili. Ah. léegi booy génn xam nga. Ah. gis naa ni ngay def. kon ku fi baax rek jigéen a tax. jamonoy man mi man mi nekkul ci jamonoy baxane Gambia bi fii waaw man mi nekkul ci gis na su may génn ay carax. <laughs> ah jamonoy baxane baxane Gambia bi. yow ay seen ak lépp ngay di kii. <laughs> di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu staff Jam Production yëpp. Hmm. di ñaanal ñëpp jàmm xewal sutura. Mm. di nuyu waa gàmbi xam nga kaan bii tamit ñu nekk jiili. Mm. maa ngi ñaanal waa Gambie ak waa Sénégal yàlla nañ dem final nañ ko final. ñu final waaw buñ final ak. bu mën nañu séddoo coupe bi. ñaar réew benn séddoo coupe. bu ñu finaloo Sénégal ak Gambie buñ finaloo koo faral. Sénégal ak Gambie ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. dootoo fi tëgg làmb de Sénégal buñ finaloo koy faral. Sénégal ak Gambie bu ñu finaloo yàlla nañ ñu maximum seddoo coupe bi. loolu daa mën a nekk nañ nañ ko sédd vidéo bii dañuy def coupe bi day def ku ci gagné nag sédd moromam ñaari réew yi benn lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bu Sénégal jëlee coupe bi nag xaaj xaalis bi digg bi jox Gambie su ko Gambie jëlee nag xaaj ci digg bi jox Sénégal jiri am na solo baa ngi koy jaajëfal bu baax moom jam production vraiment mbokk yi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb di leen jaajëfal yéen ñëpp